comme li ma ko waxoon rek Gambie ak Sénégal benn jigéen ak benn góor ñoo leen jur tasaaroo ñaari réew mi tubaab yi ñëw ñu créé benn ligne ñu tuddee ko Gambie fii benn bi ñu tuddee ko Sénégal waaye ñun ñëpp benn kër lañ jógee benn famille la ñoo fi tasaaroo nekk fii président Adama Barrow li ma sant mooy ligne boobu nga xam ne moom la tubaab yi def dama bëgg mu doon notion kese mais en pratique si opération bi dama bëgg ñu nekk benn euh, te euh, suma waxtaan ak suma naataango bi suma xarit euh, ministre Ablaye Dawla Diallo xool nañ fan bu nekk coopération sécurité lan lañ mën a def ba ñaari réew mi ñu doxal ko comme benn si wàllum sécurité ñaari ñaari pays la mais dañ ko doxal comme benn réew la si wàllum sécurité muy immigration muy euh, terrorisme euh, against euh, anti terrorisme muy organized crime muy narcotics fighting ak yenn yooyu yëpp waxtaan nañ ci te Gambie ak Sénégal nañ gën a nekk benn si yooyu mooy sud bi ak nord bi frontières yi yëpp nañ ko gën a jàpp bu baax nga xam ne boo galgatee benn réew nga dem feneen doo am foo mën a nëbb loolu moom du amati su soobee yàlla te gisuñ gis-gis bi benn la suñ doxalin bi tam benn lay doon amul benn différence si suñu opération yi diggante ministre de l'intérieur bu Gambie ak bu Sénégal lépp benn la donc euh, mun naa wax ne ñun lu ñu fas yéene def mooy ñaari réew nekk exemple biir Afrique si euh, wàllum ak si enforcement of the law ak Sénégal day doon exemple bi nga xam ne yeneen réew yi la ñu xool suñu doxalin bi suñ coopération bi ni mu mel ñu jël ko def ko exemple pour ñu ñu mun ko roy donc euh, royukaay la ñu doon si soobee yàlla incha allah loolu mooy euh, daa daarate bi ma jot si président Adama Barrow te loolu mooy euh, ba frère am magam tam joxe mooy président président Sall pour ñun ñaari ministre ñu liggéey dem na sax ñun amuñu protocole suñu diggante jaaruñu ministre l'intérieur ministre étranger ñun ñu waxtaan ndax benn lañu yëpp dañu sant pour ñu topp suñu diggante ñu nekk benn donc léegi naa waxtaan euh, problème bi am waga comme ni ko ministre bi waxee euh, mooy loolu def ñu jox indication ne ñaari réew mi war nañoo gën a jokkoo ndax fi mu nekk nii euh, macha allah ni ñu ko doxalee nag mu ngi dem yoon mais terewul ba tey possibilité mën naa am possibilité boobu la nag la ñu nekk benn pour ñu xeex ko dinañ gën a yokk information sharing intelligence ñaari réew mi képp ki nga xam ne yaa ngay déglu. te am yaakaar pour def la naka sudul noonu na nga xam ne bés ni ngi tey eh, opportunité boobu du am ndax ñaari réew yi fu ñu dem rek dinañu échange information dinañ échange intelligence eh, dinañ am eh, joint operation operation opération proximité juxtaposition poste coopération conjointe euh, coopération conjointe dina am yooyu si ña si fànn ay sécurité lépp donc euh, Gambie ak sécurité kaaraange bi dina gën a dëgër si euh, si si ñaari réew yi dina gën a dëgër ni mu mel Sénégal noonu lay mel Gambie doo mun a def dara si ñaari pays euh, te foo dem dañ di faxat lool.